kooku maanaam guddi aljuma allahuma salli ala sayyidina muhammad waaw nabiil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim nga di ko def euh, quatre-vingts fois quatre-vingts fois boo jullee tàkkusaan ba pare waaw ñu jéggal la bàkkaaru quatre-vingts ans nga def ko guddi aljuma guddi aljuma quatre-vingts fois ñu jéggal la bakaaru ñeenti téeméeri at allahu akbar